Ciro, Ciro. nice. waaw dina baax ordonnance rek laa bëggoon déglu. waaw xaw na noor kat boo boo feebaree doo dem jox ko gaal xam nga rek sama gaal dañ maa sonal si wóor wóor ko mën maa wóor moo tax nga mën nga jàppale ma rek. ok da ngaa bëgg ma facilité la ordonnance. waaw ma jàpp ci rek man mënu maa wóor xam nga ma tool wax nga dëgg dara. waaw da ngay def dara de. ordonnance moom. lan waaw. loolu loolu du ma ko def parce que tey jii bu ñu ma si naa tëb lu bari boo mun dafay ji nga dee sama. waaw jàpp loolu laa ko bindee sa waay tamit. waaw maa nga jàpp ci. ok léegi loolu dem. man sa taw ñu bàyyi dara dañu ci biir yi tabax lépp lan moo leen metti lépp a may metti lépp moo boy. Nice. Bye. Namaste. bas bala ngaa nuyoo doo summi sa daal yi ci bunt bi sa tànk yu poussière yi ah. bas foo ñu mën a li nga li nga ma jox sa lan la hôpital laa di ordonnance la ordonnance. waaw médecin bi nag bindal na ma lépp temps yi sama bopp day métti. bas taxawal li ren lii mooy. waaw xool moom. yéen lan laa leen jox ngeen war maa liiral di reetaan du ma seen moromaa lu mu bind fii. Papa, docteur bi nee na kii dara dalu ko day tappale da koo fay 5000 mu bindal ko ordonnance dara dalu ko nag. 5000 francs yow bas nit nga bas lan moo tax nga ñàkk jom tey moom di nga commencé woor wala nga génn kër gi dem ñibbi sa kër bàyyi yow ku ñàkk jom la yow bas lo dugg tey jàll ca la ca ah yow yaa iya, ñàkk jom oh tey moom daluma ci de Siru, Siru.